asalaamaaleykum mbokk internet Lune TV tey soo leen ma gisee fii ci rond point maa ngi rond point euh, Tali Diallo tey nag dañoo ñëw pour waxtaaneek ak euh, nit ñi ci matsu Sénégal bi Coupe d'Afrique bi lépp la ñuy waxtaanee tey émission bi mi ngi tudd CAN 2024. tey nag CAN 2024 nañ ci waxtaanee lu bare bare bare bari amaat na yeneen surprise yoo xam ni damay teg 2000 francs am ay question yu may poser laaj nit ñi ba xam xam nañ lan moy drapeau Sénégal laaj nit ñi aussi kan bi kan moko organiser suñu paré ci lool dina len laaj ouverture match yi kan moo koy def ak Sénégal ban jour lay football ak heure bi sama cameraman top ma joueur yi ñu and ak gaay yi wan leen lan mo xew ci koñ bi jaajëf. ku baax ma lay siyaar. maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci ah, naa ko seetaan waaw. équipe nationale xam nga ci dara. naa ci dara moom. ma ñetti joueurs équipe national yoo xam. ñetti joueurs yoo xam ci équipe bi rek. waaw ah, xam naa Sadio Mané de. déedéet bu ma tuddal Sadio Mané parce que moo fi gën a siiw. wax ma yeneen joueur bu dul Sadio Mané. non ñi ma ca barewul noonu quoi ñoo ca mën a barewul quoi am nee na ah. moom mais Sadio Mané rek daal ngeen ci jàpp Sadio Mané macha allah léegi yëg nga ni gars yi dem nañ Coupe ah, moom ah, ban dëkk moo organisé Coupe d'Afrique waaye xam naa ne ah mais mais mais attends en tant que sénégalais comme yéen ñu dem Coupe d'Afrique Sénégal nekk champion d'Afrique bii passé tey mu dem Coupe d'Afrique yéen ngeen ni xamu leen ban dëkk moo organisé Coupe d'Afrique bi non non dama koy seeraan sax rek la seeraan waa waaw mais da nga war a xam ban dëkk moo organisé Coupe d'Afrique bi. maximum match Sénégal rek laay seeraan. match Sénégal la ngay saa mais est-ce nga yow Sénégal ban jour lay football ci ci Coupe bi. non xamaguma ko dafa sax xam nga. sëñ bi yow ngay toppee Sénégal li ma jaax nga da ngay seeraan football. Sénégal la ngay seeraan tax information Sénégal sax ci football bi xamoo sax ñun kan la ñu euh, ban équipe moo moo organisé Coupe d'Afrique benn xamoo Sénégal ban jour lay football. saa saabu football daal naa ko seeraan. waaw baax ma jàppale la Sénégal incha allah lundi la ñuy jouer à 14h. ñun la ak Gambie mooy ñu premier match. waaw yàlla na leen yàlla may ndam rek. ah nga est-ce que match bi dina yomb. ah kooku de yàlla xam moom. Ah. waaw mais moom ma sañoon Sénégal jël ndam li. incha allah tey tey boo ma doon jox score match bi nu muy demee lan nga may wax. ah loolu yàlla ko xam moom. waaw dëgg la yàllaa ko xam mais yow am nga sa sa sa xool tey nga ni senegal na nga bëgg mu gagné ñaata nga bëgg Sénégal gagné. non képp ku naan ay Sénégal lii lay door wala ah. Gambie lii door moom. Ah. yaa ngi si erreur da nga naan da boo faralee Sénégal sax da nga naan yàlla na Sénégal gagné. loolu lañ bëgg moom kay bu ah. naan yàlla na Sénégal gagné mais nga ni yàlla na Sénégal gagné nangam. waaw yàlla na ko Sénégal door 2-0. yàlla na ko Sénégal sax 3-0. <laughs> waaw amiin amiin <laughs> ok. sëñ bi maa ngi lay nuyu. mbaa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah macha allah grand di nga seetaan football football. waaw ah, du bëri de. du bëri. non non mais Coupe d'Afrique bi yaa koy préparé. waaw bu baax parce que ah, ah. ñun suñu réew ñun ñuy football. ah bu baax a baax parce que ñun suñu réew ñun ñoy football quoi. ñun ñooy football. waaw xam nga ban dëkk moo organisé Coupe d'Afrique bi. dégg naa gars yi ne Camé Camé Camé Cameroun la de. Cameroun la gars wax. gars yooyu est ce que ñu di la gëlëmaaleel yow. non astafurlaa. Côte d'Ivoire waaw kay bàyyi. Côte moo organisé Coupe d'Afrique bi. macha allah eh, Yang Sénégal xam nga ban jour lay football est-ce que. Euh, sam euh, non lundi lundi. lundi ak ben ben heure lay jouer. non japp ma Japp ko 14h lay jouer inshallah. Tay suñu premier match mu nek contre Gambie Tay lan ngay wax équipe bi ak nan nga gissé match bi ñun ak Gambie. parce que xam nga ni match bob du yomb de. non ndam rek. ndam rek ndam rek. man gis na né Sénégal mom lu nek sen kanam rek war nañ ñom war nañ ko mëna jël jall quoi. ah mais loolu yombul ni nga koy waxee nii. non lu yomb la ci ñun. lu yomb la ci ñun parce gi woon ak gii bokkul quoi. parce que gii àndoon nañ nekk benn di jàppale gaynde yi. Mhm. te gis nañ ni lépp rek ci kaw ci kanam incha allah rabbi dëgg donc kon yow su a la déggee dëgg dëgg dëgg mooy que ni daal da nga yombal affaire yi Sénégal daa war a ñëw rek jaar ci kaw. gars yi dem moom dañ leen di dóor jàll incha allah. noonu nga ko gisee kàttanu ni Gambie di préparé match Sénégal ne ñun ak Sénégal Gambie match yi nii am yëpp dara mu cee yomb sama waa ji mbaa xam nga ne Gambie ñun ñoo boot mbaadu ñun ñoo leen boot kon ñoo leen boot lan nga bëgg a wax foofu ba ne ñun ñoo leen boot ñoo leen mën ci lépp ñoo leen mën ci lépp ah kon loolu yaakaar naa war na mën a leer ci lundi incha allah de ci jouru match jox ma score waaw xam naa ne ñun ñoo leen di dóor deux moom incha allah deux incha allah baax na ñu ngi lay jaajëfal tur beeg sant bi Samba Wilane Samba Wilane jërëjëf Samba Wilane kàddu yi rafet na jaajëf waaw gis ngeen ko gis ngeen ko Sénégal pays teranga la gis nga pays teranga bi maa ngi ñëw seet si Baye Fall mais moom nee na balaa may waxtaan ak moom daf may may ba pare ba ma naan est-ce que yi ma barkeeru ci bisimilah. dañ ne Sénégal Ndiaye. Mhm. wax Gaynde Ndiaye. Gaynde Ndiaye te lu nekk si kanam da koo war a jël. loolu leer na Gambie moom maa la dégg nga naan Gambie lañ am. n'est-ce pas wala kon mënuñoo téye fenn. mënuñoo téye fenn Gambie muus la si ñun. dañuy ah, ñëw rek fel ko jàll ah mais mais mais mais est-ce que xam nga ni machine daje Gambie yëpp benn yomb ci de benn yomb si mais dañuy ñëw fel ko jàll kon lu sam waa wax nga dem ah. ah, mi demee nag mais bëgg naa ñu door juróom-ñaar incha allah Sénégal Ndiaye Gaynde Ndiaye est-ce que waaw kon kay Gaynde lu nekk si kanam dafa macha tey yow bu loolu weesoo xam nga dëkk bi organiser coupe d'Afrique bi waaw boo ma si baaxalee rek ma jël Côte d'Ivoire moo ko ah, organisé waaw d'Ivoire la. bu loolu ñu demaat ci feneen. xam nga ban jour la Sénégal di joué. lundi. lundi waaw lundi heure. la Sénégal di joué waaw 14h ah, 14h la ñu joué incha allah. mais tey match bi comme ni nga ko waxee dëgg la mais lépp ñu teg ko ci cadre football. waaw cadre parce que amul lenn loo xam dafa yomb. ci ci sport voilà. lépp day jaay. incha allah waaw diggante jaay ak jënd moom. yaakaar naa Sénégal moom bu jëndee day am. est ce que. waaw ndax am na njëg bi daal. am na njëg bi de kon taw féex rek. Gambie njëgam ah. daa des. est-ce que waaw Sénégal am na njëg bu mat sëkk yaa ngi dugal code de non buñ buñ téye Gambie dañ koy dóor code ngay def ngay joxe nii ko téye dañ ma score bi ah score bi ah am am naa si yaakaar hmm. ah? waaw yàlla baax na inshallah tawfeex fàttali ma ba Baye Fall bi jox ma tur beeg sant bi ah, Baye laa Baye laa rafet na Baye laa yow nekkal si jàmm rek na la jàmm sonal Fall jaajëf salaamaaleykum papa na ngeen def chef ba yéen a ngi ci ñu ngi ziar de yéen a ngi ci jàmm bu baax wa papa ñi ngi jéggol nak tay dañu ñëwul rek am luñu bëggoon waxtané ak yeen moy ci kan bi Sénégal moy euh, Coupe d'Afrique bi ñu dem légui dama bëggoon rek nga wax ma tay yow yeen kàddu nga may wax tay Sénégal seetaanoon nga match amical bi passé nan nga gisé match bi ah wa match bi dé sara na ko bam jeex mais vraiment boy ay gëree lan de saaga ah. Sénégal mo naqaree footballeur rek mais ay jambar dëgg lan waaw ah. ah, nañ leen ñaanal yalla rek mais yow yow yow d'après ni nga seetaanee match bi amical bi yow sa xel dal na ci équipe bi. nice kay. billaahi. amuñu leen lu ñu war a yokk ak leen lu ñu war a wàññi yow tey boo amoon looy wax lan ngay wax. non bu ma amoon lu may wax daal mooy encourager leen ñaan yàlla parce que affaire góor la bon affaire réew la kenn ku nekk ak sa dëkk bon booy moom ay jàmbaar lan ay gëree lan vraiment waaw mais sénégalais moom moo naqaree fuuba lan sénégalais moom. Sénégal nee naa ñetti ah. ñetti ñii moom. Eh. pour ko nekk Sénégal. Eh. am nga problème. muy ban ak ban muy président. Uh-huh. wala nga sol équipe maillot équipe nationale. Uh-huh. am nga problème wër na yàlla. ñu xam mbaadu bu match ñëwee moom ñëpp nekk ay coach. bu bu làmb ñëwee tam ñëpp coach lay nekk. wër na yàlla. <laughs> waa dèjà loolu loolu loolu doy na waat mais ah, instant bi nag est xam nga ni Coupe d' Afrique bi du yomb. ndax comme Sénégal moo nekk euh, champion d' Afrique yaakaar naa ñëpp ñu ngi koy waajal de. non mënul yomb ndax li Sénégal yor moom la ñëpp a. moo tax mënul yomb quoi mais nag bon mën nañ delloo buy ga euh, buum ca boy boy ga de. delloo buum ca boy boy ga. waaw yaakaar naa loolu lañ bëgg de. laay man naa war naa mën a nekk de. incha allah incha allah léegi tey su ma la laajee yow xam nga Sénégal ban jour lay football. bon le 15. le 15 incha le 15 incha mel na lundi la de. lundi waaw xam nga heure bi est ce que. non non non xamoo heure bi. mais xam nga ban équipe ngay ngay ngay ngay premier match. non Guinée Guinée eh, non kii Gambie. <laughs> ah Gambie ngay pare mais match bi 14h la incha allah. 14h daal. d' accord Euh, bon ku nekk mën a gagné sa morom. incha allah mais ñoo leen ëpp doole. Mhm. mais buñ leen xeeb daal. ñoo leen ëpp doole. ñoo fuuf waaw buñ leen xeeb surtout loolu. waaw ah, buñ leen xeeb. waaw mhm. ah. léegi jox ma score yow. bon am naa yaakaar 2-0 ko 2-0 incha allah. waa papa yow ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant yàlla tur beeg sant bi. Younouss Ndiaye. Younouss Ndiaye. Younouss Ndiaye lan nga may wax ci kaan bi. Ah, xanaa ñaan yàlla rek yàlla lefal ñu cet ndax euh, loo xam ne 34 eh, pays yëpp dañ koo bëgg. dëgg la te nga jëloon ko. di mhm. am solo mooy lan nañu fexe ñun fii dakk ñun boole suñuy xol yi nekk benn ci gannaaw équipe bi. dëgg te bañ am lenn lu ñuy critiquer Sénégal nag 18 mhm. millions yi fi nekk. Mhm. ñëpp ay entraîneur. dëgg la waaye nag dañoo xam ne. mbir mi ku ko yàlla jox rek. nga jël ko mais nañ ñaan yàlla yàlla lafal leen cet te may ñu ndam amiin amiin yàlla nañu dem ba nit ñi fi def fi mu daaloon deux mille vingt bi deux mille bu def noonu jëlaat coupe bi indiwaat ko fii ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi yàlla ko yàlla may jërëjëf amiin jërëjëf ñu ngi lay gi rafet na waaw sëñ bi Ahmadou Bamba Dieng indi waaw ndax daa mujjee dem bu mu yóbbaale kersa googu bu mu ko fubbalaale est-ce que lan ga bëgg a wax foofu maanaam na jàpp ne rek moom ak Zori ñoo ànd dem dëgg la yee ko njëkk a dem. waaw waaye fu mu doon nii moom moo mujjee dem. kerse gi mu indi. Mhm. bu mu ko fubalee. incha allah merci. seetaan nga match amical bi passé. waa seetaan nañ ko. lan nga gisee équipe non am na baax na. baax na baax na. ok yow xel sa xel dal na ci. dal na si. kin tànn muy ñu bàyyi ñëpp bàyyi ko xel. mi Sadio Mané. footballut kon équipe bee day am avantage day day ñeme. te équipe bee tamit ñàkk chance moo ko tey dem. Mhm. waaye baax na moom it. waaw waaye nan nan nan yokku rek te suude wu rek. incha waaw bu kenn kenn ku nekk daal li nga bëggal sa bopp. Mhm. bëgg ko sa morom rek. mais mais mais est-ce que xam nga ni Coupe d'Afrique bi ñu jëm ñu dëgmal nii te Sénégal moo nekk champion d'Afrique est-ce que xam nga ni pulam yombul. non pulam pulam mënta yomb. ndax si lim jugee la daa jël coupe ñëw doon champion. Mhm. kon duñ ko mën a dugal du mën a am pul bu yomb. léegi ni ñu nit bu ñu bu ñu jàpp ni lenn yomb na rek. Mhm. toujours nañ nañ jël nañ jël lenn teg ko rek. muy dañoo war a gagner. ñuy dañoo war a gagné nañ nañ nañ jiital loolu rek. yàlla nañ ko fekkee jàmm daal te tal ko. ba bay feetee coupe bi nii nañ ko yàlla defal daal. te yàlla yokku leen yéen it. yokku xéwal gi yokku télé bi mu doon lu mag a mag. incha allah ñu fekke lépp. fàttali ma tur beeg sant bi Modou Ngom la waaw. Modou Ngom est-ce que jërëjëf ku baax. a ngi am jàmm bu baax foo leen jógee fan. fii rek ci croisement bi loolu doon def ci croisement bi yéen. liggéey. baax na naka liggéey bi ah, mi ngi dox bu baax euh, yéen di ngeen di ngeen seetaan football ah xam ngeen ci football dara yow ah, seetaan football kay ah xam ngeen ni Sénégal qualifié na Coupe d'Afrique du xam ngeen loolu yëg ngeen ni dem na ban yow ban dëkk moo dem moo moo moo organisé Coupe d'Afrique bi non ko yow ban dëkk moo organisé Coupe d'Afrique bi yow tamit xamoo ko yéen xanaa doon ay sénégalais ah, ba pare yéen ngeen da ngeen seetaan football xamu leen ban dëkk D'accord. Légui comme Sénégal dem na Coupe d'Afrique, mais mën xanaa léegi xam ngeen Sénégal ban jour lay football. Le ki la football euh, le 14 la ñuy xam daal. le 14 non le 15. le 15 mooy lundi incha ah, lundi lañuy football ak Gambie incha à 14h Tay lan ngeen di wax ci match boobu. Xana xanaa ñi ñi góorgóorlu rek. Ah. ñu gañ rek. gañe rek limal ma ma ñetti joueurs yoo xam ci équipe nationale ba mu des Sadio Mané nag ndax moom moo ci gën a siiw ba mu des Sadio Mané ñetti joueurs bu ci dugal Sadio Mané. bu ci dugal Sadio Mané. waaw fi Gana Gueye. Gana Gueye waaw. ak euh, kan sax Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr waaw ak kan. ak euh, Kelle Sarr. ak Bamba gey ak Bamba Dieng est-ce que ma ñew ci ki soxna ci yow limal ma ñett jour ci équipe nationale bu ci Sadio Mané bok bu ci Gana gey bok ah. ñett jour yo xam Sadio Mané da la gëna japp Sadio Mané rek nga xam wa kon baax tawbe Sadio Mané yow ci kaw ci kanam ak Sénégal merci beaucoup waju bax ma lay cher mba yaa ci jam naka yi tay lepp taw mën na tok ni voilà tay dama amul luma ñëwoon pour waxtaanee ko ak yow kamu lupa lu ma bëggoon ñu waxtaan ci tey coupe d'afrique coupe d'afrique waaw ah. di nga football waaw inshallah Allah, ngi seetaan de yaa ngi seetaan football bu baax baax coupe d'afrique bi xam nga kan ah ya mel kau Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire ya daa mel ni bi yow sa dara leerul de parce que daa mel ni nga ma wax daa mel ni waxagoo ma lu leer wax ma kan moo organisé coupe d'afrique bi <laughs> <laughs> baax na ñu ngi lay jaajëfal. Euh, tey Coupe d'Afrique bi Sénégal ban jour lay football. ah est du lundi. est du lundi. Euh. li ngay wax ni dara wóoru la ci kon. Ah, ah, man parce que da nga ne est-ce que du lundi. waaw <laughs> ah, man damaa juum xam <laughs> waaw loolu looy <laughs> sax loolu doy na waa Sénégal lundi incha allah la ñu joué. ci 14h suñu premier match ñu ngi koy amal ak Gambie. tey match amicalu Sénégal bii passé seetaan nga ko. non wax dëgg fekk moo wàcc nag. Ah, fekk la woon nga wàcc. Ah. ok kon baax na léegi ñu dugg si sujet bi muy euh, Coupe d' Afrique bi. Mhm. tey Sénégal di champion d' mhm. ñëw ñu nekkaat ci Coupe d' bi 2024 fële ca Côte d'Ivoire dañ koy joué. Mhm. suñu premier match ñu ngi koy am Gambie. di lundi incha allah ak 14 yow tey lan ngay wax ci match boobu. Ah. ak équipe bi lan nga ciy wax. ah di leen ñaanal yàlla rek yàlla yàlla may leen ndam. amiin ci barke yéen sallallahu alayhi wa sallam incha allah xam naa du yomb nag. waaw du yomb. ndax match bi yaakaar naa ay dëkkandoo lañu. te mat si dëkkandoo moom mënul yomb xanaa di ñaan rek yàlla na yàlla may leen ndam rek loolu daal la ñuy ñaan macha allah incha allah loolu la ñuy ñaan ndax football moom wax dëgg yàlla luñ bëgg la nag xëy na temps bi rek moo ñuy xaw a ba yu bare dootuñ ko seetaan mais bëgg nañ ko lool nag macha allah waaw tay bu lolou wesso xam nga sànq say bir wax maa ne dégg nga ne ma du yomb mm-hmm. effectivement du yomb parce que ñoy champion d'Afrique ben ah. ñu nag Gambie dëkkandoo lañ te Sénégal Gambie ba amul benn match bu mës a yomb déedéet mosul yomb mosul yomb te légui football ñepp ko man deug la waaw xalé yi fo ci mbedd bi sax dañoo man football machallah allah yaakaar équipe nationale mom bu xasse bu ñu xasee ni équipe nationale la rek mm-hmm. Euh, dootul yomb ndax football moom léegi ñëpp ko man surtout nag muy sa dëkkandoo xam naa di ñaan daal dañ ñaanal gaynde rek yal na yàlla yombalal leen daal lañ fay wuti incha allah ci bàkke yonent bi mm. tey loolu bu weesoo dafa am benn affaire bu ma la bëgg a laaj ma bëggoon pour nga tontu ma ci genre ñetti joueurs laa bëgg nga jox ma ko équipe nationale mais bu ci Sadio Mané bokk ak Gana Gueye ak ku Kouyaté ñetti ñooñu bu leen lim limal ma yeneen ñetti joueurs yu ñetti yooyu bokkul ñetti Pape Gueye waaw. <laughs> waaw yow sëñ bi nag. <laughs> ay ca rek ku baax ñëwoon rek Pape Gueye nga xam ak kat. ay comme da naa kay ñëpp laa xam. nag waaw li ma war a jox ma ñetti jour rek yow. Pape Gueye Elimane Ndiaye. <laughs> Eh? soo ay nag grand yaa ngi ree di xalaat de. non fi nga ma fekk la quoi. waaw waaw comme fi ma la fekk la te micro daa xaw a doy waar. te xam nga rek. instant yii waxagum nga ñaar benn la dese. benn rek moo la dese. yàlla xam na innocent ñëpp laa xam. <laughs> ñu ngi may jaajëfal gannaaw bi bu la feneen nag ba bàyyi loolu mais gannaawul amul problème. tur beeg sant bi. Abdou Diop ah Abdou Diop. Abdou Diop nga tudd. Abdou Diop di nga seetaan football. waaw des des fois rek. des fois ok yëg nga ni ñu ngi ci période Coupe d'Afrique. oui oui maa ngi maa ngi ko yëg waaw. dem na wala demagul. Sénégal ah non dem na. dem nañ ban dëkk la ban dëkk moo organisé Coupe d'Afrique bi. bu <laughs> laaj laaj xool yi. <laughs> bu ma laaj loolu de ah. amul problème comprendre nga ko bàyyi ma dimbali la ko rek. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire moo ko organisé d' <laughs> accord amul problème euh, Sénégal ban jour lay joué. as man li ma mënta comprendre. Oh, lu toll ni Sénégal di football. <laughs> non mais dama ndànk. lu ah. toll ni Sénégal di football lu toll ni Coupe d' Afrique. Sénégal nekk champion d' Afrique. ñu organiser waat Coupe d' Afrique deux bii di Côte yéen xamu leen ko organiser coupe d' bi xamu leen sénégal sax ban lay football te loolu nekk actualité jamono ji waaw xam na daa am ñoo xam si ne football ñoo koy gën a mën a bàyyi xel quoi xam naa bu ma équipe bi ñu fee to xamoo ñu nag Gambie ñooy si premier match incha allah ah non loolu moom maa ngi ko maa ngi ko maa ngi ko doon gis affiche quoi waaw ah, yaa ngi doon gis affiche baax woon fii. waaw bi ñu joué stade Abdoulaye Wade bi hmm. waaw nan nga gisee équipe bi. ah Sadio manqué na ci torop loolu la. Sadio Mané manqué na ci. Sadio Mané manqué na ci. torop mais loolu loolu loolu est-ce la tamit lu toll ni équipe nationale bu Sénégal. Ah, benn jour di ci jógee rek muy feeñ. Ah, buteur am na ci équipe bi. ah buteur. buteur rek lañ bi moom lañ manqué mooy buteur di feeñ na ci keroog. yow daal loolu nga gis moom laa gis kay yow jàpp nga ni bi <laughs> mën a mën a bañ a baax. dëgg la léegi tey bu loolu weesoo lan ngay wax équipe bi suñu match contre Gambie nan nga gisee match bi. Gambie moom incha allah rabi dañ leen dañ leen dóor moom incha allah rabi. Hmm. waaw lañ leen di dóor. ah yéen a leen dóor incha incha allah incha allah baax na léegi bu loolu weesoo dama am ñetti affaire yu ma lay laaj mais ñetti yu ma lay laaj saajo maane du ci bokk. waaw. Hmm? doo ma limal Sadio maane waaw doo ma limal gànn Gueye. waaw doo ma limal Cheikhou Kouyaté. jox ma 5. non 3 jours au Sénégal yo xam si tu ñett ma la limal nga bu len ah. mais jox ma yeneen jours ma xol maam Mendy. waaw ak Pape Gueye. waaw ak euh, Ismaïla sar ak Ismaïla sar lool neex na ah. non suis na dafa am benen affaire bu may ah. li 2000 francs la. waaw 2000. ah ma ko 2000 francs question bi ma me le vous vous Vous gagner 2000 francs yi ah, waaw vous kay la caméra drapeau Sénégal couleur Nous nu mel mel drapeau Sénégal rouge Ah. vert Ah. rouge Ah. Ah. ah Ah. Ah. bu <laughs> nañ dem gannaaw yow perte nga nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem nañ dem. <laughs> kilifa gi maa lay siyaar. yàlla yàlla nangu. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant naa yàlla tur beeg sant bi. Moustapha Diop. Moustapha Diop Moustapha Diop nga seetaan football. waaw léegi moom la jot dinaa ko seetaan. di nga bu baax. xam nga ni ñu ngi ci période Coupe d'Afrique. Ah, ban dëkk moo organisé Coupe d'Afrique bi. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire moo ko organisé. Sénégal dem na dem nañ. baax na Sénégal kañ lay joué. le 15 ah. lundi ah. à jàpp ma heure bi nag nag. 14h. 14 nga match amical bi passé bu Sénégal seen match préparation bi avant ñuy dem Coupe d' ah, nan nga gisee équipe bi. Ah, mais manque efficacité rek. manque efficacité. Ah, mais manque efficacité boobu noonu amoon ci match préparation bi est ce que loolu lañ soxla fële. ah non loolu kay soxla ñu ko fa

te senegal Gambie musul yomb. non non yomb te premier match ñu ñoy am Gambie tay yow nan lan ngay wax ci lolu poule bi sax poule bi moom amuñu su adversaire bu yomb. werna yépp yëpp match derby la. Mhm. match yépp mo match yo neex moom match pour da ngay ñëw pour gagner ko moom. da ngay ñëw pour gagner ko. wa match yépp da ngay wara a pour gagner ko. match Gambie moom nga wara a dóor parce que équipe bi nga yor. Mhm. waroo taxaw benn équipe. waroo taxaw benn équipe. wa qualité joueur yi nga yor. ñom yoruñu ko. wa légui deug la qualité joueur yi ñor ñom yoruñu ko

buma ma euh, wa ñet ña ñetti ñooñ bu leen tuddal légui jox ma yeneen ñetti trésor yo yoo xam. Formose Mendy. waaw Ismaïla Sarr. Mhm. <laughs> Euh, Edouard Mendy. ak Edouard Mendy Sadio Mané ban numéro lay sol. 10. 10 lay sol euh Edouard Mendy. Edouard Mendy 16. numéro 16. très bien légui dafa amaat benn question 2000 francs yaangi ni 2000 francs yaangi ni <laughs> 2000 francs Les ngi nii que je bi ma laaj moy hymne national du Sénégal la bëgg mu taril mu mu mu mu ah. la. question rek. ba une question. ah une question réponse rek. <laughs> ñu def question réponse D'accord. euh xam nga drapeau Mali. drapeau Mali. Hmm. drapeau Sénégal nu mel. suñu drapeau. grand perte nga waay. grand perte nga waay nañ dem grand perte nga waay drapeau Sénégal grand perte nga waay grand ana foo foo fan nga ngay yóbbu. ak koy door a wax. <laughs> si depuis sàng ba léegi yaa ngi may sonal naa la jël naa la léegi jël naa la noo tudd. Ndeye Binta Ndiaye. Ndeye Binta Ndiaye foo dëkk. kër gi. kër gii nii nga dëkk. Ndeye Binta Ndiaye da ngay seetaan football. waaw. loo xam ci football. ah. loo xam ci football. match bi xanaa. ban match. match Sénégal. Sénégal kañ lay football. lundi. yow est-ce que juuma. lundi la. yëgoon ni instant yi match yi annulé nañ ko. déedéet lundi la. ah annulé nañ match bi nag. lundi la la ban dëkk moo organisé coupe d'Afrique bi. Euh, kii nii. kii kan Gambie. Gambie. <laughs> man yow laa bëgg Gambie kañ la ma Gambie organisé. ah ko organisé. déedéet. tamit Côte d'Ivoire dégg ma dimbalee la ko. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Sénégal kañ lay football. le 14h. muy lundi yow mom da ngay suur marché ni limal ma joueurs yi nga xam 5 joueurs yo xam équipe nationale. gan Gana euh pap Diop. kuy pap Diop. ki ni Sadio Mané. Sadio Mané bu ko ci duggal mom ñëpp ko xam. euh oh. kon dañu am joueur bu tuddu oh. eh eh Galil. ah Nay Nay continuer yow pare ko moo ci 2 minutes. nday mi daa mel deux millions nday nday hymne national bi Sénégal laa bëgg nga woyal ma ko fi alors que na bokola nga bokola wax bokola waa ku baax maa ngi lay yaa ngi ci jàmm sant tur bi Amadou Ngeba. Amadou Ngeba Amadou Ngeba di nga seetaan football. Oh, si si. ah koy pratiquer sax. da nga koy pratiquer de ah. ah ban dëkk moo organisé coupe d' Afrique bi. Hmm, fële Côte d'Ivoire. Sénégal dem nañ wala demaguñu. non pour l' instant dem nañ jël nañ drapeau yi ba dem. ah dem nañ. waaw baax na Sénégal ban jour lay joué. Euh, bon exactement xaw ma date bi nag. xamoo date bi. grand yow ngay ngay ngay seetaan di pratiquer football. équipe nationale bu Sénégal qualifié coupe d'Afrique ba dem xam nga ni yow jël na drapeau bi ba dem mais xamoo sax jour ba ngay football sa premier match. ouverture bi xam naa ko le treize la mais xamuma ko kañ. mais ni nga def ba xam ouverture mu ko woon def ba xam sa match Sénégal boobu ëpp solo di. waaw ah, mais dinaa si kii dinaa si. ban équipe ngay dajal premier match Sénégal. Euh, Sénégal premier match. <laughs> kee tëdd sax kee tëdd ku ko xool xam ne làmb la xam mais mi ngi lay wax Sénégal Gambie Gambie lay daje Gambie <laughs> Gambie la ñuy am waaw d'accord la Sénégal di jouer à 14h incha allah contre Gambie euh, match préparation bi ñu doon def fii hmm. stade Abdoulaye Wade ñu nag Niger seetaan nga non boobu tamit seetaanu moom mais gis naa résultat bi. gis nga résultat bi d' accord bon boo ko seetaanoon lay gën a nekk comme ça ñu mën cee waxtaan. résumé bi aussi tuuti rek. d' léegi tey yow nan nga ko gisee en tant que champion d' Afrique. Hmm. ñu dem Coupe d' Afrique encore fële ca Côte d'Ivoire. nga am premier match ak ñi nga xam say dëkkandoo lañ muy waa Gambie ay dëkkandoo lañ. te Sénégal Gambie musul yomb. waaw match match piège la. tamit derby lay doon te derby moom du yomb. waaw match bu dee da koy jël au sérieux nga joué ko gagné ko jàll si benen match door calculer benen match mais aucun match ne gagné à l'avance quoi. donc si je te comprends bien ni ñu football match par match. waaw match par match tamit ñi si terrain bi nga jox def full ak fayda gagné door calculer benen match bi waaw. Mhm. baax na tey ban yóbbal ngay am tamit ci sénégalais aussi supporter té dafa am ben affaire est ce que xam nga ni tubaab lañ tuddé suñu coupe d'afrique afrique bi est ce que. Hmm non non un petit tournoi lañ ko ok waaw ku rek petit tournoi. Ah. parce en Afrique. en général le football amee. Ah. boo est stade du fees. stade du ouais waaw parce que tu lu une Coupe d'Afrique. tu boo ah. xoolee tey comme pays organisateur Côte d'Ivoire. C'est sonn match dina mais Côte d'Ivoire bu ci paree yeneen équipe bu ñuy jouer stade du c'est pas normal. tax bi hmm. petit tournoi. waaw peut-être aussi ñun ñoo gëmul suñu bopp tamit en tant qu'africain ñoo tamit ah, joxul valeur ci li nga xamante ne mhm. ñu ngi koy organiser au contraire tubaab bi ñoom bu ñu organiser ñun danañ ah, xaar dañuy dañuy yàkkamti heure bi lu muy jot ñuy toog si match si tele di xaar match bi mhm.

waaw drapeau Sénégal. gisaguma ku ko trouvé Ñima ko question ñima ko poser ñep ken trouvé comme vous si xam lo si lan drapeau Sénégal drapeau Sénégal. Hmm. donc euh, drapeau ça fait partie des. non lan moy drapeau couleur yi jox ma. drapeau Sénégal li la. vert. Mhm. verdure. Mhm. jaune. Mhm. fleur. et le rouge. le sang versé par nos ancêtres. Machallah. oui.

ñi bokk la pour ñi xalaat ni mën na nañoo dajeeg Sénégal et tout tey te Coupe d'Afrique bi du yomb tey imaginer ñu nag Gambie te Sénégal Gambie musul yomb tey ñu nag lii comme li waa ji wax léegi rek match bi marché piège la tey nan lan nan lan ngay wax ak nan nga gisee équipe bi ak Gambie aussi Gambie moom xam naa ne xamoo leen miinoo leen mais tey yow lan ngay wax ci match yooyu ñoo gars yi xanaa ñu góor góorgóorlu rek comme niñ defoon ci maanaam comme match bi surtout première match bi ñu am ko mu nekk seen dëkkandoo moom nañ jàpp ne comme dañuy joué final rek comme bi ñuy joué ak Égypte euh, si seen final bi ñu reyee seen bopp noon rek xam ne ci première bi aussi ci lañ mën a defaroo ci lañ mën a parce que première bi bu ñu gañee surtout ñu gagné seen dëkkandoo yi da leen di encouragé motivé leen pour ñu mën a gën a góorgóorlu ci yi si des quoi mais gars yi ñu ñëwee dóor leen ak xam nga rek xëy na match dër bi la mais xam nga ñun côté Gambie bi ci wàllu football ñun am na fu leen xaw a classé ne ñoo leen mën nangam nangam mhm. léegi nag bu ñu dóoree nag gars yi mën nañoo bàyyandiku xam nga rek mooy loolu daal mais bii daal nañ jàpp ne final la rek nañ ci rey seen bopp mais sax lii logique buñ ko tegee ci yoon dëgg parce que dëgg la football la ku nekk mën nga gagné mais match bi moy Sénégal daf ko wara gagner gagné muy premier match am. parce que yaa de un ñun ñoo nek champion d' ben mm-hmm. benn suñu premier match ñukay dajé dajeeg suñu dëkkandoo muy Gambie. c'est ça match boobu nii la soxlawuñu ci dara victoire 3 points rek la Sénégal soxla lolu moy yoon. coupe bi dañoo wara woné né manam dañ ko mérité. manam comme niñ défa gaay xam nga par série penalty la. Mm-hmm. mais dañoo wara ñëwaat làbbali gars yi premier match ba gaay ñi ci dess mëna a tiit bàyyi ñu xel. pour xamné gaay yi kat bañ ne woon ba légui ña nga fa quoi. voilà xam nga bo fàttalikoo en 98 France moo champion du monde 2002 Sénégal qualifié avons dit France bi nga xam moins champion du monde Sénégal est 1-0. est-ce que xam match France est sax premier tour. parce que comme champion. voilà parce que on est champion. ce premier match y a une compétition Ce premier match si ko rek. déjà il y a travail travail dafa bari. donc nous ñun ñaanuñu yàlla dans le Sénégal. Oui, ñaanuñu yàlla dans le ah, Sénégal te bi aussi dafa am benn wax bu tubaab bi xam nga lan lañ tuddee suñ coupe d'Afrique bi. Hmm. petit tournoi. déedéet kay. waaw ah ñoom moom dañ à yab de. non non xamal tax ñu tuddee ko petit tournoi. Hmm. parce que Sénégal euh, Afrique sax laay wax en général même compétition coupe d'Afrique boo les stade de fees à part pays organisateur la stade de di non franchement nag. loolu c'est pas normal parce que booy xoolaa euh, si seen ñoom seen match yi ni muy feesee parfois damay toog naan. gars est-ce que dañuy liggéey ndax ni ñuy feesee seen stade yi. voilà mais Kanta bu mel ni comme man sama classe gi. Hmm franchement mosuma dem stade seetaani match. non d'accord même yow bo demul stade même yow bo demul stade mais lu toll coupe d'Afrique non mais mais mais tay lu melni coupe d'Afrique tay par exemple Côte d'Ivoire bi ko organisé en général sen sen deuk bu Côte d'Ivoire jouer comme match ouverture bi mu wara jouer joué euh, samedi à 20h contre Guinée Bissau mhm. ñom sen match boobu day bul sonn stade day plein mais ñom buñ ci paré benen deuk buy joué waat te ñoom seen équipe manam comprendre nga maam duñ ñëw au fait stade bi fees et tout affaire yoy non côté bobu non la wax même buy ñëw donte ay quelques ivariens ñoy ñëw ces yenn matchs mais dans les normes voilà mais dans les normes match yépp a war a fees loolu parce que parce que compétition la coupe d'Afrique la wax comme ni coupe d'Europe di amé seen stade yi di fees coupe du monde di am seen stade yi di fees ah, donc kon ah. ñun suñu coupe d'Afrique bi ñun ñoo ko moom ñun africain yi donc war a fees ah. tubaab yi waruñu ñoo yëpp ci dara non normalement normal loolu moom d'accord naa ci cent pour cent moom boobu nag ñoom ñoo tax ñu tuddee ko petit tournoi donc loolu moom ñun ñoo ko war a bañ quoi nañ ko bañ nañ ko bañ moom vraiment di ñaax sénégalais yi nekk foofu rek nañu góorgóorlu xam nga képp kuy africain kay génn waaw massivement fu ñu manti nekk ñi mm-hmm. jege même ñi nekk Mali sax na ñëpp fekk ci gars stade yi fu ñuy entraînement ak fépp affaire yi xappi daal yàlla may leen dam incha allah ba ñu delloo si waat trop bu soobee yàlla incha allah fàttali ma tur beeg sant bi man Mouhamed Tounkara Mouhamed Tounkara ñu ngi lay jaajëfal kàddu yi rafet na merci beaucoup